jërë ngeen jëf ami internet Dakar Live TV di am mbégte jàkkaarloog yéen fii ci Dakar Live TV seen émission waxtaanee ko nag la ñu wax surtout mois décembre la ñu nekk dafa sedd euh, tey nag dañuy doxantu biir Ndakaaru Njaay waaye daa am fu ñu dem waxtaanee waxtaan bu neex fii ci Dakar Live TV euh, dañ koy bett dañ kaa wër xool fan la nekk tey ci Ndakaaru ñu dugg ci benn ruq fekk fa def ak moom émission bu toj boo xam ne ay révélation yu yéeme la ñuy joxe tey ci Dakar Live leen ngeen topp ma xool fan laa jëm ak yéen ay go tey du yomb Dakar Live TV émission waxtaanee ko avec Paco tout est possible jaay jëf waay ñu dem donc gis ngeen gars yi fi ma dugg ah tey dafa am ko ma ñëw seet si du ma waxagum turam parce que dama ko nara bett su ko defee def ak moom émission bu yéeme donc gars yi ñu koj ko fii ci kanam léegi léegi maag yéen ah jaajëf mbokk yi comme nu ma leen ko waxee rek tey gis ngeen ah dañoo ñëw seet ci benn ndaanaan uh, fii ci Dakar Live TV nee naa la fii la ñuy leeralee lépp tey seen émission waxtaanee ko nag uh, du yomb ba tax na gars yi leen ko xel Dakar Live TV gars yi let's go topp leen ma su ko defee ñu xool ndaanaan bi ñu nar a dalal tey waxtaan ak moom. Ah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tonton maa la ñuy jaar waay. waaye si jaww tey moom dañoo bett suñu suñu xarit suñu lépp seet si ko tey tonton ñu ngi lay jaar. yaa si jàmm bu baax a baax macha allah. sëñ bi ñu ngi lay jaar bu baax baax waay Ah, yaa si jaaw ngoon gaa ngi nii tey bett nañ la de te moom moom dañ laa fekk si fekk si la si ay ruq ñëw seet si la xam nga ñun moom mooy loolu foo dugg ñu dugg fa waaw moom borom kër gi la ñu nuyoo kon jeex na joxal ma ko micro bi su ko defee moo nuyu suñu <laughs> suñu papa ji papa ñu ngi lay ziar maa ngi yaa ngi si jàmm bu baax waaw ñu ngi góorgóorlu macha allah tur bi Ñoxor Guèye Ñoxor Guèye ah. ah tonton Ñoxor ba am bàyyi nga nuyu waa Dakar Live TV su ko defee ñu mën a commencé waaw loolu am na solo asalaamaaleykum Dakar TV ñu ngi leen di sargal di leen wax bienvenue eh, yàlla li ngeen fi wut si yàlla leen ko yàlla defal amiin yaa rabbi amiin seet si ngeen ko mata seet si mm-hmm. naanaanu naanaan mm-hmm. suma waay nag mm-hmm. moo tax bi ngeen di fëgg sànq sax surtout bi dafa doy waar quoi dëgg la mais xam naa gaa ngi koy wër fu nekk dëgg la parce que ñu ngi koy woo ba sonn mais mënuñ ko jot peut boobu yéen ñaar yi la nekkoon mais xam nga nit moom sutura laaj. dëgg la. dara ñëw mm-hmm. mm-hmm. allah mais da wax lu am solo da leen ne ndaanaanu ndaanaani waaye sama waay la yéen ñaar seen relation. Oh, loolu si ok. Mm-hmm. mais loo gis rek doo koy mun di wax quoi. dëgg la ndeysaan acca jegal micro bi ko tontoo lu bari mu ngi xew ci samay mbir moom mu ngi ci ginnaaw. ndeysaan te mosu ko waxee. donc bu ma ñëwee ndakaaru nag. Mhm. lii dëgg mooy moo xamal ñu bari ne jàpp na ci quoi. ok tey bu ma nekkee président club bitim réew. Mhm. moom ku ci jàpp la. ndeysaan. mooy woon ne xaas nit la boo xam ne day jël pour mhm. di ñaw rek di ñaw waaye. donc c'est un grand monsieur. c'est quelqu'un de. d'une autre dimension quoi loo xam ne jafe na quoi mm-hmm. nit nag mën nañuy wax mën nga wax lu nekk mais mm-hmm. ñun Dakar lañ judd waay waay Sénégal mu demee noonu sax c'est vrai mu demee mm-hmm. xam nañu naanaan yi quoi waay donc nga bëgg ko naanaan la nga bañ ko naanaan la il a déjà participé ci réew mi def na fi li a def am na juddu quoi am na passé aussi donc si quelqu'un s'est fait tout seul As moom moo yóbbu boppam fu mu toll. ngay ñafe ba am li mu am. il s'est fait tout seul donc. waaye mhm. laa du mérite. Mhm. donc euh, bëriwuñu quoi ay ñoom Youssou Ndour ñoom Xaas. ak ñeneen ak ñeneen quoi. xam nañu fi ñu génnee fi ñu jaaree ba fi ñu toll ko mhm. donc lañ ko war a jàppale. ñaanal ko parce que réew mee ko soxla. waay dëgg la. muy génne ci situation bëri na. koo xam ne mun na génne par jour. li mu liggéey yëpp da koy joxaat nit ñi. waaw ah, surtout dem créer ay employés loolu tamit euh, c'est pas facile. il est en train de mhm. faire pas mal de projets. Mhm. donc na ci gars que moom dafay représenter le mouridisme. Mhm. te gisoo kenn kuy représenter le mouridisme di représenter Sénégal. Ndakaaru di def yëfu da dëkkoo dëkk nag fekk naa ko Gambie. mais boo gisee comme président. escorte tout. et fii tekki na fi quoi. donc na ko gars yi ñaanal ñu ñaanal njabootam. Mm-hmm. moom wér yaram. et que voilà du dootul keneen ku ñuy. waaye ñëpp xam nañ ko ba pare Sénégal dootul ñu ku ñuy présenté c'est vrai. nekk mooy loolu quoi. Mm-hmm. ñun si xam nga du ñaan rek n'importe qui. Mm-hmm. nag booy. waay comme loo xam ne doon ñu ko présenté quoi. dëgg la waay. ñëpp xam nañ kuy ñoxoor. Mhm. ñëpp xam nañ kuy xaas. Mhm. dañu ñaanalante rek dem mhm. la. réew mi toll na fu nga xam ne polémique dafa war a dañ. effectivement. ñu ngi def ci social nag ñu ngi jàppale gars yi. te kenn du ko yëg. ci a allah loolu leer na tonton euh, bienvenue. ma bàyyi la ngeen waxtaan ak seen waay. fii nag këram la lu may wax. fii këram la fii këram la macha allah tey moom xaw ma kan moo leen jox direction bi. <laughs> waaw mais xam nga ñun ak moom. c'est baax moom ay yeneen kooku moom benn la. waaw waaw non non non non te fii këram la lu bëre ngi doon xew na quoi ñi xam xam nañu fi mu nekk boroom kër gi ci lu mu doon yëngu ci loolu la xaas di yëngu aussi donc euh, këram la quoi non loolu ñuy dox xaas loolu lay dox amul tey bu ñu doon peese mënutul génn ci mbedd bi mhm. donc gars yi aussi xam nañu quoi donc euh, yal na yàlla defal jàmm Eh, xam naa ne rek dina ci jàpp fii moom xaw ma. Dakar Live bi moom. Mm-hmm. ca kaw rek incha allah baatin baa ngi moom dina ci jàpp. donc ñu ngi lay la gërëm. parce que lii mooy lu baax sa moromu aadama da nga koy wax. Ah. ndax boo ko waxee lu wàllu dara si fa baax comme comme xam ne lay sant di la gërëm. Mm. rawatina ak teral bi teral. Mm. fekk nga ñëw rek Dakar Live TV ndax lu bëri bu mu ngi noonu yàggul dara bu mujj ci tabaski bi la mhm, mhm. donc ngi noonu seen waxtaanee la ko fii ci Dakar mhm. su ko defee rek a a waxtaanee lu bëri nag fii ci Dakar Live TV sëñ yàlla yàlla nangu ziar di leen nuyu bu baax a baax yéen waa Dakar Live di wax rek di nuyu di ci jiital maas di la ci teg xam nga da nga wax wax bu am solo bisu tabaski defe naa li muy xat xat teewul def nañ interview kon des fois yàlla boole ay nit xam ne nag ñiy mer dina bëri mais nañ wax rek gars yi moom fexe ngeen ba loqarti nga jox naa leen li war a Cheikh loolu def naa ko mais nag am na ci loo xam ne mënuñu ci dara ndax loolu day dem ba day am ñu ma war a mere ñu baal ma rek bañ maa mere macha allah voilà voilà macha allah macha allah yow Sénégal yi defee nag suñu waxtaan ndax gars yi dañ la trop xam nga dañoo toll jamono boo xam ni man dafa am léegi lu ma opté mooy dama ni xam nga booy xool buy wax ñiy wax bari léegi damay wax ci sëriñ dafa am lu ma ci gis loo xam ne day dem ba da lay tiitloo. léegi actuellement. est-ce que Serigne léegi daal li ma gis daal li ci réew mi fi mu ne daf ma ragalloo sax benn côté te yàlla dogal na it suñu waxee war nañoo wax suñu waxul war nañoo wax mais day toll benn moment nag dafay baax nga di dekk liggéey sa liggéey macha allah parce que man li ma gëm mooy Sénégal dina dem ba toll foo xam ni nekkatul jamono yi wax dangay bëgg a jëf publiquement rek nit ñu gis daal man loolu laa gëm de. Euh, ci si liggéeyu sëriñ bi nga ñëw si. Euh, hmm. ñu xoolaat ko donte ku jóg na sëriñ laa rawatina sëriñ TikTok yi. waaw xam nga xam nga sëriñ laa actuellement dafa dafa yomb mais nit ñi aussi ñu de xam nga tàkk-tàkk mbopp yàgg nga ko gis ci sëriñ maanaam mu ni bërët ñu ne ana sëriñ ba kenn déggatu ko te dafa doy waar xam nga man li ma ci gën a metti sax du ku jóg ne sëriñ la mais léegi dañoo wàcc cadre sëriñ bi indi leen léegi da ngay gis sëriñ da ngay laajte yow ñi ay sëriñ lañ wala li ma mënta d'accord sax ci doy na waar daal du lépp nga mën a xam boo waree pour defar du lépp nga war a wax daal mais liñ ci mën a wax daal xam naa ni bari na mais yoon la nag ñu tourné waat daal tuuti. wax ne yow yaa nekkoon seen messi mais hmm? léegi ñu wax sax léegi. Hmm? dañu sànni waaw xam nga nag moo lay wan nii mais bu ñu xalaatee li seen Messi musul sànni xeer xam nga yëf yi dafa dafa dafa dafa yomb tey da ngay gis tey téye micro di wax lu yomb la mais tey koo ci demoon këram boo moytul boo fëggoon walaay moo lay tijjil doo fekk nit mais da ngay gis nit ñi ñoo lay seedeel loolu man damay wax nii xaas ba tey mooy xaas ba tey boo xoolee tey boo demee famille li dafay firnde dafay leer euh, yàlla xam na ko nañ koy ragee conduire parce que nit ñi aussi doo fu ñu maanaam fi may mettit lu rek mooy léegi da ngay gis léegi dañuy génn suñu cadre dugg ci affaire politique wala dugg ci leneen dugg ci leneen léegi bu demee ba nit bu deewee sax yow mooy sa actualité wala tey dara day am sax ñu ne la yow sëriñ bi acca profitool wax ci lii pour nit ñi mën laa seetaan pour nga xamoon ni sëriñ si ñu bëri tey la yàlla xam doy na ku ci toogoon wax ci sa xam-xam boo moytu quatre personnes du la seetaan fa léegi na nga jël ku dee taf ci wala nga jël kii taf ci wala actualité man loolu moom ma yàlla xam na ko mais loolu bëri mais mais bokk na ci lu ma ci lu ma metti te vraiment man su ma sañoon ñëpp xaw nga man tey sëriñ amul teraanga bu mu ma joxul ci àdduna. dëgg la waaye liggéey bi moom amul lépp loo xalaat nit dina ko am ci sëriñ wallahi bi ma ko yàlla joxe xaw ma kañ la pour nga xam ne amul teraanga bu mu ma mayul mais am na yoon boo xam ne ñi fa jaar da leen di yërëm da ngay xam ni fii ñu jaar baaxul. mais mais fi ñuy jaar baax la si tamit doo leen woowaat comme comme bu leen nga tey bëri na solution am tey koo ci dëkk micro comme la wax kuy référence am waaw na ñu ko naan mais nag euh, am na yoon boo xam ne yàlla xam na ko bëgguma fa jaar te te euh, waxuma indi waxuma tamit pour sànni xeer wala wax pour dara dama wax pour li nga xam ni te imaginer daf lay métti de da gis nit ku dee barki alxuraan nga taxaw ci nit ñi ko rey uniquement rek ngir bëgg ñu seetaan xam nga après affaire bu daf lay metti waaw nga gis nit koo xam ne wóor na leen si nga taxaw ni kii lii mooy am ci moom wala kii lii mooy am ci moom après gi waaw mais daf lay metti en tant que sëriñ léegi waaw mo ak ñàkk jot aussi man damay wax ne ab sëriñ yàlla xam na ko ak yonent su ma ne la li may woo ci télé di ma woo ci kii xaw ma nu mu toll mais da dem ba yow sa ñàkk jot sax daf koy war daf la koy waral justement léegi da xool ni léegi des na tuuti xanaa gars yi koy laaj 100 pour cent preuve bi dinañ ci doxaat man loolu laa gëm daal wane nit bët mais le reste nit ñi siise man loolu laa gëm léegi 100 pour cent preuve yooyu noonu gis nañu fi nii moom waa xam nga tey euh, <laughs> boo xoolee xaas Sénégal kenn laab laa maytu ko li waa ji di wax euh, coow li nag mën na bëri ci da ngay xam ni ku jiitu li waa ji di wax lañ naan tànk bi daa dëng ki nga ki nga féete kaw xam nga da nga gis ki nga féete kaw mu ni tànk bi daa maanaam ki nga féete kanam moo mën a gis sa tànk bu dëng mais comme li la grand bi wax gis nga bu ñu àndee ci mbedd rek sax dèjà da ngay am problème pour nit ñi nga xam ne yow fii ngi leen ni fii nga toll ci nit ñi da nga koy xamal sa bopp mais depuis kañ la xaas gëj a del te teewul ba tey mais su ma nee la du télé du site interview bi nga sol xaas mën na la ko wax defal benn côté mais am na ci loo xam ne daal ñu delluwaat a gënal sëriñ ba toog tey wax lu nekk te barke alxuraan tey doy na waar daal bëggoon na koy yërëm boo ko gisee yërëm ko parce que di loolu la yàlla mais daf metti nga xam ne tey ñoom yoon bi ñu jaar nii tax yóbbuwu leen non yoon bi ñu jaar nii yóbbuwu leen foofu. te man daal léegi giiñal ci alxuraan te waa léegi léegi li ñuy wax lépp kon lu leen lu ban jëriñ la leen amal xaw mën naa laa giiñal moo tax euh, doy na war daal non man du kër sax du kër sax xam nga li waa ji di wax man wàllub sëriñ lu ma ci amul ci àdduna amul dañuy wax ni man sëriñ mayuma benn kër ay kër la ma may ay dégg ma de ay kër la ma may ay loolu sëriñ moom ma ko may may ma may ma loo xam ne tey nit a ko parce que dafa am yoon bu ñu jaar nga xam ni yoon bii du yoon bi xam nga tey boo génnoon ci mbedd mi saaga ku romb day ñëw ni eh, diwa ngay saaga mais lu muy wax kii est-ce que wér na waaw mooy yenn yii ñuy def nii génn ay maa fi ne non non non mais yaa fi ne jarul wax yaa fi ne wallahi jarul wax tey yéen a warul jël seen caméra yi rek dem fëgg sëriñ si di nga fëgg sëriñ moo lay tijjil te bu toogee di nga digg mu ni la nangam xaas nag maa la ko may bu la neexee suba ñëwul parcelle dimbali ma li laa war a suul jeudi gis nga boo ñëwee parcelle commencé jël ci mbedd bi dugg parce que gars yi dañuy wax naan xaas client yi ñëwul laa ilaha illallah parce que xam nga toog naa sama rakk man dèjà bu fay nekk di faj li muy recevoir ci nit est ce que di nga gis sax bu koy recevoir fii parce que ci turu xaas lay recevoir ci côté boobu lay waxee ça veut dire nit ñi di nga dem affaire yi di nga dem ba dépassé loo xam ni da ngay xam ni fii maanaam sa bopp rek doy na doy na doy na kii problème wax ci musique ah foofu du fa dugg xam nga ku ci nekk xam <laughs> non yooyu yooyu du ci wax mais xam nga ku ci nekk ak la koy la nee naa la mm. sëriñ bu ci toog wax ci xam-xam ba mu jeex bareetul. xam nga lu tax bareetul parce que da ngay xam ni tey boo waxee ci xam-xamam rek yem ci ñaari nit duñ ko seetaan fa lekk nag léegi mu tudd borom tur ba ci man moo tax ma sonn léegi il ñu tudd borom tur ah justement amaana sax da ngay dem ba jug ci sax pour noppalu mais boo ci juguloo da ngay ci jug uniquement li mu ciy def mooy tur parce ku ko ci def boo ko woowee lu mu lay ah boo ko ne man la diw du ko sax gëmee du gëm ni sax yow lay waxal alhamdulilah mais alhamdulilah la ci teg ah sëñ bi man dama laa bëgg sama soppe yaay sama nga xam ni tey kii waxul pour dara mais dafa pour ñu seetaan ko da nga ci woo nit mun parce que dama xam ni da jaay moo tax ñu lay tudd mais maa ngi gis nga baal ma am na hmm. benn sëriñ du hmm. boole ñëpp yow waxul tur mais yow lay waxal boole xeex moom nee yenn sëriñ yu bëri léegi dañoo daw def benn bloc comme genre ASC e pour ñëw xeex ak moom naa laa géeñal ci alxuraan awma jotu xeex ak kenn bay xeexal kenn man awma jotu xeex ak kenn bay xeex ak kenn xam nga des fois sax nit tooñ ma de parce que am na benn euh, vidéo bu ñu ma envoyé ay nit toog ci télé tudd ñu xaas ak lay seetaan barki yonent yàlla Muhammad bis boobu seetaanu ba émission fekk ma fa pour te dire euh, euh, mais man sëñ bi chaque jour ma wax ko nit ki dooni maay sa idole muy wëlbatiku di mais am na ci loo xam ne xel nanguwu ko. <laughs> non man doon nit du non bëri na ci sax ci sëriñ si ah. yàlla seede na ko non am na ci sax ñu nangu. de boo xoolee internet bëri na ñoo xam dañuy nangu naan Abdoulaye Diop xaas yaa parce que looloo fi am li xaas boo koy fekk boo ko fëggee du la ibbil appartement am de mën na la ibbil kër ibbiwaatal la kër ibbiwaatal la kër. kon fexeel am li xaasam xaas tey bu tuddoon di nelaw sax ginnaaw macha allah. Ah, ah, vraiment macha allah ci loolu nag xaas balaa ñoo demaat gën a xuus suñu waxtaan. Hmm. gis nañu yàggul dara teg nga ab centre commercial macha allah te loolu euh, euh, loo xam ne ndaw ñi ñu ngi fay daan seen doole lan moo est-ce que du looloo gën a ndaw ci li ma bëgg a def. Ah waaw parce que grand am na lu mu la junj. boo xoolee est-ce que xam nga ñàkk jot bi tuuti rek. barke yonent bi xam tey boo xoolee gëj naa def 100 pour cent kon nga xam ne kon xaas xew na gëj euh, xew na parce que dafa am ci benn affaire bu dugg naa ci ñi xam parcelle ndeysaan fan yooyu dama toog kañ samedi bële passé mais bi ma demee yàlla seede na ko ci caméra wax sama yaram dafa daw dangay nga wàcc ñëpp ree seen xol seen mu wóor na ni tey gisaat nañ la mais man am na benn voyage bu ñu waajaloon boo xam ni benn tournée internationale bi ñu pare woon euh, li ma la wax mais doy na seede mais dagg nañ bii ba dem desoon far foofu ñu tëj pour nga xam. nit ki des fois di nga nekk ci leneen loo xam ni yaa ngi ci moo tax nga dégg bi mais fi mu ne ci semaine bi rek di ngeen gisati moom koy léegi ngeen sonnati nag moom bu xaas commencé ti coow li di si boobu. déet ak xaas commencé naa fay. fi mu ne 100 pour cent xam may naa leen suba. ngeen ñëw mbooloo mi ngeen di fekk sama kër. kër sëriñ bu ngeen ko fekk man mu bàyyi faj. suba incha allah loolu leer na. kon mën moo gën a ndaw ci li fàtte naa ko pour te dire dama koo fàtte. maa nga ca leneen. donc damay ragal lii war a génnaat feeñaat bu feeñee mais mais mais pourtant Serigne wax nañ ma man ah, envoyé nañ ma ni ma ab formation sax yaa ngi ki ngay wax na man tuddal tudd leneen nañ ma ko sëñ bi. ah bien sûr. mais mais waaw mais da nga koy yërëm da ngay xam ne kon ñoom amaguñ dara ci Serigne. man Serigne li ma am lépp bu ma ko génne woon baa duñ ñu kii kon dafay jaay leneen wala dafay leneen. ñoom seen wërsëg bi nga jël moo tax ñoom tamit parce que client yi tamit bu ñu nekkee ci kenn rek. waaw léegi ça fait ñaata at. maa ngi ci loolu. fii keñ kañ xanaa ma dem ba waxoon naa leen ko fii fii laa ko waxaate ci dakaar live xanaa ma dem ba samp nënd bi ni leen léegi jaww ji ki mbir maa ngoog mais nee naa la sànq maa ngi ci moom roi des arènes da koy dégg incha allah. ah non loolu laajteel loolu kay loolu kay. <laughs> non non ñi may formé rek incha allah li ci kanam rawul bët. ok macha gi nag la ñuy waxtaanee gis nañ ne nga fa loo xam ne tamit koy bàyyi xel. macha allah am na solo. Mm. Mm. Euh, sa lan moo koy indi parce que léegi chaque année nga dem Gambie organiser ko lu mel noonu faj ay nit. Mm-hmm. gis nañ vidéo yi ñu koy sama dëkk la. Mm-hmm. man dama koy wax man du Gambie rek. tey dëkk bu ma dem xam nga nit euh, di nga dem ba xam nga dëkk bi nga nekk. Mm-hmm. dëkk bi nga nekk boo demee tey ba. du nit ñi fii lañ la xamee yaa ngi ci yaa ngi ci erreur man dama jàpp ni tey fu ma dem ci àdduna rek sama tur jiitu na ma Gambie dafa rafetoon avant continuer di rafet ba tey loolu laa gëm moo tax sama dem Gambie toujours euh, sans problème Gambie man euh, ni ma jàppee Sénégal laa jàppee Gambie vraiment. macha allah sëñ Xaas léegi loolu foofu leer nag Gambie li la fa yëpp mooy euh, bëgg ak bokk. di leen dimbale te yàlla tax. nga dem ba bokk ci dëkk ba gis nañ nag teral yi nga xam ne gars yi la koy teral. même dañuy gis force de l'ordre yi dañuy ñëw sax. ànd si félicité mhm. président Barrow. Barrow waay ci xam nga ne ànd dafa dafa kii gis nga jouru Sénégal. Mhm. dëkk la gis nga liñ ma gis ak président Baro rek. Mm. man daal waatee ci alxuraan envoyé nañ ma ay audio yoo xam ne ay sëriñ ñoo koy def nii Adama Baro du gagné. ci élection yi noonu ñu doon jëm. fii Sénégal sëriñ si fii lañ ne dañuy wax ak nit envoyé ko ñu ko am ñu ma transféré waat ay audio ay sëriñ ay. ñu ni bàyyi ko rek du doon kii Adama Baro dinañ ko duur duur yi métti pour wax la réew mi ñu nekk da dem ba ndam sax pour nit yéene la ko dafay jafe. c'est que Sénégal tamit comprendre moom. waaw léegi nag boobu soxor yow nooy ñaanalee nit ba pare am boobu xol kon nooy ñaanee mu nangu. waaw loolu mooy nekk sama problème après man fi ne ñëw ngi gis ñoom ñëpp dama leen yéene jàmm. te ñoom yéene wuñu la jàmm mais bu ba gis sa xaas taxaw ak di bu dee mbërub làmb ñu ne yàlla daal. waaw parce que yàgg la ak dëgër tamit loolu détail amoon na fi. waaw léegi gis léegi ana tey da ngaa dëggaat ko ci wax. nii lay demee nag léegi boo gisee ba taxaw ni bàyyi da ngay dem ba am na sama benn mbër dafa ma ni sëñ bi bi ma dugalee estoti sax dama am problème xaas xaas xaas xam nga yenn sëriñ sax am ñu ma mere am ñu ma ne da ngay daan mhm. léegi gis nga xel mi léegi nag dafay dem yow pour nga sëfee sax kooku da ah, mais oto bu nekk si ginnaaw kenn du ko corné bu nekk si kanam la ñuy. waaw mais xam nga loolu dafa métti de. waaye hmm. euh, beneen laaj bi nag mooy mu ci dëgg ñu ngi ci fenn yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi. dee hmm. doon noflaayam. Hmm. waaye waajuram bu góor dafa génn yàggul dara ñu ay naataango Dakar Buzz muy papay Fambaye euh, déggoon nañ ci nag ab Ablaye Diop xaas xaas xaas si dimbale yeeg yooyu noonu Fambaye sax toog na di wax sa wax ne Ablaye Diop xaas lii laa laa mais papam dafa génnaat def sortie ah. euh, mu ne Ablaye Diop xaas dañ ko yóbbaale rek mun nañ ne dafa mën comme kii wax ne Abdoulaye Diop Khass du ci dara ci mbir mi ah. mais dañ ko yóbbaale rek bës la ci bëggoon daal ah. comme genre yooyu daal la wax ci wax li mu wax noonu waaye waaw di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di santaat yàlla xam nga àdduna mhm. faa mbay dem na yàlla na ko yàlla yërëm te xarit ca na xam nga defe naa li war a nekk xelu ñëpp mhm. gis nga nit bu demee mhm. sëñ bi li ko war a def mooy nga ko c'est vrai a awaane nag eh, àdduna wax dafa jafe. Mhm. waaye wallaahi wal quraan man papa yi mhm. lépp loo xam ne waxoon na ceeg man. Mhm. yàgg naag tey ak suba mu ci sama téléphone bi. ce que dégg eh, nga am na vidéo buñ ma envoyé mu ni moom duma ci dara sax waali la rek nangam ak nangam. côté boobu mu baal ma. yàlla rek a tax may wax. man damay jàpp ni sax dafa tooñ tuuti xam nga lu tooñ. gis nga bi muy envoyé Cheikh Taalif mu ne ay audio. Mhm. boobu man xaajaguma wax ak Wally Seck téléphone ku dee ak sa bam bi. pour ma dimbali ko ci fa mhm. faa mbay envoyé Cheikh sama téléphone. Mhm. ñoom koy Wally leen ko gën a yombalal. ok pour nga mën ñu gis la quoi. bien dëkk bi ñu nekk moo doy waar gis nga booy déglu nit ñi. ak waxal lii ak boo bëggee am lii waxal lii. wallahi la ma waxoon ca sama ca ba muy dund yàlla na ko yàlla yërëm te xare ma ko boo bëggee am ñëpp ñàkk ñëpp. Mm-hmm. àdduna mm-hmm. boo bëggee am ñëpp barki yonent bi da ngay ñàkk ñàkk ñëpp c'est am na ci loo xam ni mm-hmm. yàlla def na ko ba pare wallahi def na ko ba pare paa bi mag la te doomam la metti na ci xol amaana nag ndeysaan bu sañoon doomam jug ba mu koy gis waali it yéen rek la ci amoon dëgg la parce que man damay wax ni wax dëgg yàlla bi ma ko Cheikh bi ñëkk wax te boobu ñoom ñu nga dëkk sàngam dama ni leen a ah, bëgg naa dem foofu mhm. xam nga kon kon boobu wàllu ñëw ma ni Cheikh mais mënu fee bàyyi mbooloo mi di fa dem mais mhm. na ñëw Dakar mhm. boobu ñëwee dakaar ni ñëw na dakaar ñuy jàpp jour ci la ma waali woo xoola loolu te waali bi mu wooyu daf ma ni dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi nga woo papay Fambaye ok li muy guddi guddi loolu la ma nga woo Fambaye. ok bi ma wooyee Fambaye mu woo ma dafa kontaan ni ma nekk Fambaye moo ko ni kenn rek laa gis ni mën na ma faj muy xaas. kon lu ci waali def. Mhm. kon dëgg yàlla def ci dara mais des fois nag ndeysaan àdduna moo metti mhm. man sama yoon nekkul ci kenn. Mhm. man yàlla wax yàlla wax dëgg yàlla xaas ci li mu war a nekk mais problème bi mooy. Euh, bu ñuy faral di déglu ay nit rek des fois dañuy réeral. donc da nga jàpp ne paa bi dafa dafay dafay déglu ay nit moo tax. ah mais moo ko waxal boppam déglu bi mm-hmm. ci interview bi li mu ci wax. Mm-hmm. dégg nga ko nit nee na ni ma waxal état bi na ko en te man noonu laa leen ko waxee woon. wax leen ko. Mm-hmm. man dem na ba pour ma dugg fa nee la problème la. problème la woon waaye c'est vrai. te mën naa laa giiñal ci alxuraan buñ ma gërëmee buñ ma gërëmul garaawul mais li ma la wax Cheikh mais doy na ci seede man la ma fa def. gëwuma ni nit def na ko. ci kër gi ak ci moom quoi te yàlla rek tax di jël sama alal di leen may te déggoo dégguma dégguma dégguma dégguma mu wax ko parce li dul xaasa ñu te giiñal naa la ci alxuraan moo tax def lu baax da nga koy def rek ngir yàlla mhm. waaye bu ko def sax ngir ñi man heure bu ma fa mës a dem li ma la wax Cheikh Talif doy na seede dinaa yëkkati sama alal jox leen te yàlla rek tax ci famille bi ci famille bi ak ci maire bi ci paa gis nga courant boobu di coupé daf ko wax sama yaram dafa daw mhm. bi mu ma ko ci guddi gi man maa bi ok te pourtant loolu waxuñ ko ah. non ak leneen ak leneen. ñu dul jeex maa dem ba mënuma ko wax rek gis nga kee di ko wax dafa fekk lépp maa dem ba mënuma sax moo tax dama ko déglu damaa ruus. parce que ñoom dañuy wax ne état moo ko jël. dégg ma de barki njol màkka damaa ruus. billaahi wallaahi tallaahi xam nga lu ma ruusloo rek mooy. Mhm. man giiñal naa la ci alxuraan. Mhm. soo ma defaloon lu baax. Mhm. barke njol màkka dinaa ko wax. dégg man soo ma defaloon lu baax micro bi. sama defaloon lu baax. Mm-hmm. barki njool màkk dama koy wax xam tax ma koy wax. Mm-hmm. damay xam ni kat ki lay defal lu baax te waxoo ko doo nit. Mm-hmm. dégg nga wax bi te man yàlla taxoon te man léegi xaaral après dinaa ko woo sax moom mi nga xam ne fekkee na lépp dafay baax parce que tamit sénégalais dafa bëgg ñu naan mu ngi nale moom li tax sax jaru ko woon mooy doo mën na wax après amul problème wax parce que gars yi dañuy bëgg ay cas sénégalais bëgg cas waay man yàlla rek a taxoon ma koy def maire bi ci boppam bi faa mbay gaañu moom moo ma ni ah nee naa xaas de sama doom la wax dëgg yàlla ndax téléphone bii ma yor moom ma ko jëndal. ndeysaan maire bi ci boppam. Hmm. mais billaay déglul discours am yëpp tudd ma. waaw maire moom moom. paa bi. Hmm. paa bi bi faa wax na dëgg de. Hmm. damaa ñëw fekk appelam ma rappelé ko. mu wax ak man ni ma ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm saytaane ñëw rek. mais Fambaye yi ci dëgg ñu ngi ci kii avant muy gaañu sax wax naa ko ni sa yaram bi doo gis ku ci gën xaas. Mhm. bu fekkee waxuma loolu yàlla bu ma gisee ak yonent bi te tey gisoo nee na xaas dañ ko yóbbaale rek. waaw yóbbaale boobu mais pour xoolal léegi nag wax <laughs> wax bu doy waar a ngoog te euh, lii lépp da ngay comprendre. yóbbaale boobu moo jaaxal Sénégalais yóbbaale bi xam déet tax ngeen loo xarti ma dama ne woon du ma la. waaw xaw naa yàgg ba wallaay dama ne dama ne woon deux jours trois jours mais comme laaj ngeen ma ci ça fait mm-hmm. l'occasion mm-hmm. ma leeral parce que xam nga dama leeral. Mm-hmm. nit ki boo bëree soppe rek sonn nga. dëgg la di nga dégg ñu naan a ah, paa bi di parce que gis nga tey. Mm-hmm. ba ci médecin bi lay tiim di la faj. Mm-hmm. yàlla dogal nga wàccee ci loxoom. bu amoon yéene nga jub. waaw ah, loolu mooy àdduna sax. nee ko jërëjëf. mais pas diw dañ koy yóbbaale. di ko xaxar wala di ko sànni. wala ni li ko sénégalais di wax sax d' accord ma parce am na lu nekk ci xolam mais fi ne mënu koo génne. mais li ci ma ko ñëkkee jox garab ñoom li ma lay wax mhm. ma ni daawul nelaw guddi ci loo commencé di nelaw guddi bi nga ko joxee garab mais nag imaginer li ci xew yëpp ak li ma ci dégg ak après génnaat gi moom damaa gën a sonn ci feebar bi liñ ma laal ah léegi lu ci lu ci lu ci lu ci dégg nga li papaam waxaat papaam tudd ay tur man tudd naa tur ci site di ni diwa mhm. papa waxaatu ko ni diw ñëw foofu pour ne ni neel état bi jël ma nangam léegi diw moomu moo xëy wax ni état bi jël na ko ensage diw moomu noonu. ñëpp a ko déggandoo ci interview. ba ba tudd turam. Mm-hmm. te pourtant man diw moom wax naa ni lépp moom la. Mm-hmm. kon wax ji leer na. moo doon créé lii yëpp. pour wax la ah moo yóbbuwoon site moo yóbbuwoon kii yëpp ko euh, moo ko doon interview. ok léegi kon wax ji leer. gis nga yàlla tudd na si waat turam ah. gis nga yàlla mm-hmm. luy dëgg. doo ko def mukk am ci gàcce. looy def te yàlla rek tax. Mhm. wallahi da ci am ndam. man nag li ma doon def yàlla kese taxoon te moo tax sunu borom may. mais yaa diw boobu noonu bu njëkkoon da ngeen a seqoon jàmm jékki ba léegi ah. ba léegi sama xarit la de. ah mais seq jàmm tamit te détail di am seen diggante moom. non mais da ngay comprendre xam nga àdduna. Mhm. Euh, ku nekk am nga sa mbër boo sañoon mooy daal. da ngay comprendre. te yow mën nga am sa mburu bopp. waaw dëgg la tey moo wax la ci tey <laughs> bëri na ci ñoo xam ni. gars yi ku ne am sa ku ne ñuy xool ku ñuy. léegi nag ki nga xam ne nag wóor na la ni tey moo moo fi ne. Mhm. loo mën a def pour kooku puus sa sëriñ ñëw da nga koy def. dëgg la waaye nag day fekk kooku nag sunu borom moo ko fi teg. léegi imagineel tey ku loo ni woon dina dem ba paa bi tudd turam. waaye tudd na turam de. ah waa kon. donc moom moo nekkoon ci ginnaaw lépp leer na ah, foofu. ah waaw sant yàlla donc léegi su ko defee laataa ñuy tàggatoo rek dama bëgg mu gën a leer euh, sëñ Cheikh bu dee mën nga ñëw rek euh, ci par rapport ak affaire bi nga sànni ci une rek dama la ko ñaan acca. da def te yàlla tax. acca dëgg la dëgg la dëgg la. bilaay jarul wax. non mais mais dañ la dama la si ñaan rek euh, une minute rek ci li nga xam ne yow fekkee nga ko nga expliqué ko su ko defee ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Dakar Live TV xam mbir mi na la demee. waaw waaw waaw xam nga boo gisee lii bëggumoo ci woon wax. Mm-hmm. xaas dafa am lu bari lu mu jànkonteel ci faj bi. Mm-hmm. boo gisee ba ni dem. Mm-hmm. ba mu fay ba muy dem di faj yi ci. mu doon daj ci jafe-jafe. moo gën a metti koo xam bu ñëwee ñu wax mu sol. yére bi mu sol ni mu mel ak ku comprendre xam loolu dafa metti dafa metti dëgg mu dem ba ci biir. Hmm. man ci boppam am na yenn xultu yoo xam da doon am. Hmm. mais bëgg ndaw si wér te yàlla tax. bu ma ci jotee duma ko nangu wax xaas. Hmm. dama ñëw nag noo kii de nee na xaar na la jotul la nangam nangam wax ko nu mu gën a rafete façon yi mel am na audio yu fi amoon. yu kii di sant. ne xaas dañ maa bëgg a jaxaseeg moom. mais nangam ak nangam nangam. am na ci yoo xam bu koy garder. gardewu ko pour ñàkk confiance ci mhm. kenn. Mhm. mais comme dëkk bi léegi nit ñi mën nañ weex. waaye même minute yi ñu ñuul kukk. dëgg la parfois da ngay sécurité. Mhm. sécuriser sa bopp ko ëllëg waay looloo ko waral mais man la ma gis ci xaalis parfois bu doon dimbalee sax. buy jox kenn ku ne bu la jox du nangu keneen ki yëg ne jox na ko. ndeysaan ci li may teg bët. ci famille bi ci famille bi. bi mu demee ba ci biir nag. affaire yi am lu muy nuru buy jox ci la ñëpp di xam ne joxe na fi lii. ñoom mu doon kii ci biir. téléphone ba ñoo ànd. ventilo ba ñoo ànd. xéwal yi moom dafa dëkke woon am. ña fa nekkoon a nga fa xam lii nag doo ko bëgg a wax. ndax lu baax a tax da ciy baax ñu leeral. dèjà ba muy faj yi. kiiwul laajul xaalis. bi mu njëkkee première kii nit ki butéel la muy xeeñ dañu jàpp ne moo la saañ bay xeeñ la butéel ba def. premier jour ñu wax ko ko. daf ne bu ñëwee ma faj ko. Mhm. léegi ñu ne dagana mu xool nu mu war a demee dagana ak mbooloo mi koy xaar parcelle. Mhm. mu ne bis bu ñëwee Dakar. bi mu ñëwee dakaar man mii la Fambaye waxal yàlla na ko yàlla xaar àjjana. amiin amiin amiin mais bi mu waxee ak moom. xaas ne nag du nekk kër docteur mu ko fay fekk di ko faj. bu ñëwee mën na koo jox këram fu mu nekk ak lépp taxaw bi. lii moo doonoon li avant waale bi ñëw. bi waale ñëwee waale dafa lu baax. ak yéeneem. Mhm. xaas bëgg lu baax ak yéeneem. Mhm. ñoom nag seen yéene jooju dafa ànd ay galgal yu métti yoo xam ne que bu doon lu ñu am dara sax jaru ko. Ah, dafa am ñu taxawoon pour pour xeex daal pour bañ loolu am non non yow kii li muy daj ci dem na di faji fa mbay oto mag li yi ci biir kenn mënu ko wax. Hmm. li doonu nen de. ah bon maanaam xaaj xaas fajuloon fa mbay kese de. mais dafa am ñoo xam da seen intérêt mooy fa bu mu wér. Ah. comprendre wax. léegi ñoom dañ ci doon gagné quoi. déggoo li ma la wax am na ñoo xam ne foofu la maanaam victoire xaas. waay defetu xaas la ñoon wër quoi. Hmm, te ñun xaas bi mu yéene bi mu amoon na kii wér. Hmm. te yàlla tax. man toog naa benn jour sax ñuy wax. crash di kaf ba ma ne ko ah sëñ soxna si bul waxee nii. ki sa say waajur a nekk ah, waaw waaw say waajur a nekk fii defal yow kontaanal rek. wax wax bu neex quoi. pour façon boobu jàmm am ak doo bëgg a. macha allah kàddu yi rafet na. mais xewal daal waaw xewal en tout cas daal lu waay ji moom di nga ko sax moo demee noonu nag àdduna moo demee noonu donc foofu moom leer na lool trop trop trop trop te lii la ñuy bëgg ah euh, su ko defee gars yi jox leen ma micro boobu ñu jox sañ xaas laatañ mu mun a tàggatoo donc da siy baax tamit sañ xaas euh, mbir mi ñu koy leeral xam nga Sénégal la ñu nekk li ñuy def dara bonu ci juste dañu bëgg rek lu leer parce que tamit ku ñëpp xam da ngay mm-hmm. sonn ci àdduna mm-hmm. ndax comme ñee def nañ sorti génn yow tamit mm-hmm. day baax nga def sorti leeral ñi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel léegi foog ne fu mu ne ndeysaan waaw di ko ñaan rek moom mm-hmm. sunu papa la. Mm-hmm. sunu la ma ko daan wax rek ni ko sama papa ga. Mm-hmm. mooy ni mu ni mu juree faa la ñu juree noonu la juree waali noonu la juree keneen. des fois sax nit mën na def dara xam nga wax dafa am ñaar waxu pénc ak waxu biti. man wallahi barki njool njool màkk bëtu baay ba ma ko doon xool ba tey loolu laa koy kon jeex na tànk mais ko ci ma tuusi d' accord man tagg bi sax li ma ci metti mooy mhm. gis nga sëriñ bi mhm. man lu baax lu baax rek laa koy teg mhm. man soo ma defalee lu baax moom ala kulli al billaahi damay wax ne lu baax defal na nag nit ñi bokkuñu di ko ñaanal Fambaye toujours na ma koy waxee jigéen bu baax aussi Euh, yàlla yërëm ko te xari ko aljana ñoom ñi ay waajuram yàlla jàppale leen doole leen doole leen sutura képp ku leen bëgg a dimbali te man leen dimbali na leen dimbali te yàlla rek tax amaana it euh, doole yemul mhm. waala it euh, comme paa bi li ma dégg mu wax mhm. na dem jaale mhm. kese jeex na papaam la Fambaye jigéenam la woon jeex na. yéene ba waali amoon yàlla xam na. man la ma amoon yàlla xam na. paa bi li tax muy wax yàlla xam na jeex na. na teg lépp rek ci loxo yàlla àdduna amul solo man daal loolu laa gëm kàddu yi am na solo sëñ Abdoulaye Diop Khass hmm. donc ñu ngi lay sant di la gërëm lan ngay tàggatoo waaw jërëjëf di kontaan loolu waa Dakar Live comme lu xarte ngeen ma <laughs> ngeen ma ñi war a mer nag wax leen ni euh. wax leen yàlla seere na ko de lii ba mu amee léegi li ma woo xaw ma nu mu toll. dëgg la ma ne leen duma ci wax. mais leeral na Dakar laa jeex na nañ jël fii ba pare ngeen ñëw fexe maa loqarti. <laughs> génne ma xam da seet dolli moo gën a nañ ni man dëkkuma Liberté 6 waaw dëkkoo Liberté 6 Liberté ngeen ma fekk ah tamit Liberté 6 lañ dëkk sax waaw jeex <laughs> loolu loolu mais nag yi nañ comprendre rek ni mm. incha allah lii rek la ñi doon laajte xaas mm. amaana nammi gi bëri na yéen génnewaat ngeen ko léegi nag mm. ah comme dañu waroon voyage yi am na lu tënkawaat tuuti ci voyage bi ñu nga waat parcelle li ci kanam rawul bët suba incha allah jeudi bi 100 pour cent preuve dañuy ñëw maa ngi fa incha allah incha allah rabi jaana Xaas donc mbokk yi mi ngi noonu seen émission waxtaane la ko woon fii ci Dakar Live TV gis ngeen Ablaye Diop Xaal lépp loo xam ne waroon nañ ko leeral leeral nañ ko te àdduna nii la bu ñëpp nangoo ñi dañuy bañ mais moom ñëw na leeral lépp te nii la rek la bu amee lu bon nag jàpp leen ni suñu nii la bu amee lu baax jàpp leen suñu borom la di leen jox rendez ba